des na la màggal danañ la jiital ma wax la màggal gi yàlla màggal nekku ko bokk di sëtub Sëriñ Tuubaa bokk ak ñun jotaay bi di boroom xam-xam ñi nga xam ne it waroon nañoo teew te xëy na gàllankoor tax ñëw ñi danañu fexe ba jëfandikoo jumtukaay yu bees yi ngir li ñu fi waroon a présenté ñu seet ñu ko am mën a amee ci ñoom ñu def ko à distance ku melni docteur Bakary sambu nga xamni ni ci won daw jitu daaw jiite ci institut ku melni ne Seydou Diagne ñaan mom tamit di ab gestu gëstukat nekk ca France wala Maroc ak ku melni ne Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si di do doomi Serigne Abdoul Aziz si Al Amin moom it waroon a ñëw yàlla def na mi ngi woon Touba jamono yi waye xeyna tay dafa am gànt ba tax na motax tax gisuñ ko ci jotaay bi waaye ñoom ñëpp incha allah kenn ku ci nekk danañ fexe taataan seeni kàddu ba incha allah lañu ñu eh, doon séentu ci ñoom dinañ ko ci dinañ ko mën a am buñ demee ba ci biir waxtaan mooy Serigne Cheikh docteur Cheikh Gueye euh, ñu ñëw ci li nga xam ne mooy base yi walla li nga xam ne mooy sabat bi loolu ma doon wax léegi nga xam ne mooy dund bu jag bii ñu am te bo te bokkuñu ay waaso bokkuñu askan bokkuñu fu ñu féete ci gàttal lan moo ñu may ñu mën a am jàmm jooju wala lan moo ñu mën a may vivre ensemble boobu ñuy def am cohésion sociale am nekk ci daal jàmm ba noppi wuute ay waaso te yàqaluñu dara loolu lan moo ñu ko may kon laaj bi mooy lan moo ñu may loolu ñu am ci Sénégal yii nga xam ne mën nañu vivre ensemble ci jàmm su ko defee loolu ñu daal di jox docteur chef bi mu wax nit yi li maanaam base yi wala fondement yi nga xam ne moo sabab loolu ay analyse yuy wane ne Sénégalais bi ah, nit ku dal la en général nit ku féete ak ngor nit ku fonk moo loolu bi nga xamee ni tubaab bi ñëw na euh, ci réew mi même ñëw bu yàgg avant même ñuy wax njaayum jaam mi ñi nga xamee ni ñooy voyageurs yi fi doon jaar doon euh, décrire li nga xamee ni moom lañ fi gis ak peuple yi nga xamee ni ñoom lañ fi fekk ñoomit doon nañ tàmm di décrire li nga xamee ni mooy euh, ñi dëkkee Sénégal. waaye littérature bi nga xamee ni moom moo ñu gën a jege euh, muy lu ñi fi nekkoon muy colonisateur bi indi fi ay pexeem indi fi ay jumtukaayam indi fi taxawaay boo xam ni taxawaayu ñëw noot ñu la moom it yenn ci instrument yi nga xamee ni moom la yëkkati woon pour noot ñu bokk na ci di ñu xool di ñu liñ bat di xool li nga xamee ni noonu la suñu dëkk bi bindoo peuple yi nga xamee ne ñoo ko peuplé ni ñu li ñu bindoo ba tax na littérature bu yaatu ci ni nga xamee ni noonu lañu ñu des décrire suñu ay peuple am na ci ñu mën cee jukki lu bari euh, ci archives yi am lu bari loo loo xamee ni projet bi nga xamee ni mooy histoire générale du Sénégal jukki na ko waye man euh, ginnaw lolou it gis nañ ay institution yo xamé ni batay weyel nañ que soko setlo université bu melni l'université université Bordeaux notamment fi nga xamé ni fa la wax Talence muy centre d'études d'Afrique noire bokuna na bari na lo xamee ni yëkëti na ko ci ay analyse aussi jëmale ko ci li nga xamé ni mom lañ tuddé le contrat social sénégalais manam pour ñom li nga xamé ni moy expliquer euh, Sénégal nek depuis au moins 60 ans wala bok lu ko lu ko li taxit euh, ginnaw colonisation ñu guerre pour libérer suñu dëkk euh, lolu yëpp dafa am ay jaar-jaar ba jaar-jaar yooyu jur li am muy déggoo bu am diggante ñi nga xamee ni ñooy kilifa aada yi ak ñi nga xamee ni ñooy kilifa diine yi euh, ci jokkoo bu di am seen diggante ci ràbbalante bu am seen diggante ci waxtaan wu ñuy séq ba mu tax muy jur

soo xoolee ni suñu réew mi bindoo surtout bu fekkee tey jii da koy compare ak ay réew yu ñu dendal yoo xamee ni dañu am problème euh, de conflictualité ci seen biir di dëkk ñu am problème de contrôle teritorial maanaam naka lañuy def ba réew ma ñu dëkkee réew mi Euh, état bi ak lépp lu état di yëkkati ak taxawaay bu muy am ci réew dana ko mën a am ca réew ca réew ma ba daj ko ñoom dañu am problème boobu kon dina baax ñu apprécier euh, maanaam taayu réew tolluwaay surface li nga xamee ni noonu lay nekkee facteur de paix bariwul luñ koy dugal ci analyse yi te pour man lu ci am solo la ndax su ñu demee tey jii nii Soudan wala ñu dem Tchad wala ñu dem Mali wala Niger li nga xamee ni bokk na ci euh, lu ñu mën a teg loxo ne bokk na ci lii tax dëkk yooyu amuñu yenn stabilité yi loolu ci la bokk maanaam lu ñu bari ci réew yooyu seen parti territoire yu yaatu yoo xamee ni amuñu ci contrôle euh, service étatique yi mënuñu fa yegg service yi nga xamee ni moom la nguur di ameel waa dëkkam mënuñu fa yegg mënuñu fa matale a tax ñenn ca ñooña jóg taxaw ne ñun kat bokkuñ ci réew ba indi fa ay jafe-jafe kon Sénégal nag nekk réew moo xam ni réew mu yem la ci côté boobu bu xamee ni foo dem man fa fekk service état état yi même bu fekkee tolloowuñu wuñu taxawaay fépp mu doon aussi réew moo xam ni ci paysage ak ci milieu naturel dafa doon réew mu bindoo nit ñi dëkkuwaay yi ñu dëkk fa ñu dëkk nekk ay dëkkuwaay yuy mottalanti soo ko xoolee euh, li ñuy tuddee Sahel mu tolloog Jolof Louga jëm kaw ñu soxla lañ euh, waa Bawol fi nga xame ni fi la taw yi ëppee ak waa Saalum wa fleuve non la ñu soxlaa it waa Sahel Sahel bi non la soxla fleuve bi manam complémentarité yoyu ci milieu naturel yi tamit dafa am solo ci expliquer pourquoi rew di am jàmm ak euh, rew di ko ñak xajna na ko dina dina duñu am temps bi waye pour man élément bu am solo la bo xamé ni c'est souvent absent des des analyses mais complémentarité yoyu dafa euh, lëkkaloog yenen ñaari phénomène Yo, xamé ni dina contribuer aussi ci li nga xamé ni moy vivre ensemble sénégalais bi doon li mu doon benn bi moy migration Manam besoin bi nga xamé ni mom la nit ñi am ci joggé fenn ci euh, fa ñu dem feneen fek fa ñeneen jaxas donc migration yi doon na ci suñu histoire loo xamee ni lu am am solo la loo xamee ni favoriser na vivre ensemble boobu muy migration nord sud muy migration sud nord maanaam ni séeréer yi jógee Fuuta di wàcc ba ak Mandeng par exemple fi nga xamé ni mom moy tay zone bi ñom yi ngi euh, ba yegg ci euh, communauté rurale de Fimla, ba Fatik. nga xamé ni seen jaxasoo fofu la depuis les années 1000 1200 donc loolu dafa nek cosaanu Sénégal ni nga xamé ni non la wa Fuuta <coughs> ci temps El Hadj Omar jógee ñoom fa ñu dëkk def migration top li nga xamé ni moy vallée bi dans le cadre d'une guerre sainte loolu tamit dafa indi euh, euh sen jaxasoo ak yeneen i xeet ak yeneen ni société mën nañu wax ne fu nekk xeet jóge na fa jaxasoo ñeneen ñi senegal loolu particularité wu Sénégal li koy firndeel mooy ni ñu néewee ay tur ak ay sant maanaam soo ko xoolee senegal dëkk la boo xam ni boo koy comparé ak yeneen dëkk daanaka sant yi bariwuñu te it sant comme ni ñu koy waxee dëkkul fenn foo dem fekk fa même santé bi si la soko setlo yit di nga gis ñu wax urbanisation manam muy ni ñu Sénégal bokk na ci deku tax yi nga ni ci up yi nga ville ñu up taux d'urbanisation ci Afrique euh, fi mu Afrique mi ngi en général 36 taux d'urbanisation sooy le Sénégal il y cinquante pour cent 50%. surtout faites que, comme nous l'avons ko waxee boole nañ ci Touba considéré comme ville mais officiellement le chiffre officiel est quarante six mais comme nous dëkk dëkk yoo xamee ne <coughs> comme un village alors que euh, réellement nous sommes un lañ ay ville donc soo ko boolee Sénégal day dépasser largement les taux d'urbanisation en Afrique li tax may convoqué taux d'urbanisation yi ville ku nekk xam ni lieu wu jaxasoo la lieu boo xamee ne la nit ñi dañ fay tasee ñu wuute dëkkandoo ko jaxasoo donc l'olit dina tax ku nekk euh, foo dem ci réew mi fekk fa sa mbokk mu lalu aussi ci loo xam lu fi gën a yàgg lool la muy ay cousinage à plaisanterie euh, ku nekk boo dëkk boo jógee fi nga dem changer sant ba dëkk foofa te yow sa perdre sa sant bopp ndax dafay am ay correspondance patronymique loolu jóge nekk lu yaatu ci Afrique de l'Ouest boo demee Mali fekk ko fa boo demee Burkina Faso fekk ko fa ñu seq ko ak ñoom ba tax pendant très longtemps ni Sénégal mel yeneen dëkk yi nga xamee ne ñoo ñu wër yëpp noonu la ñu mel ndax dañu amoon même instrument yi même ressort yi ngir euh, sàmm seen vivre ensemble donc histoire boole na waa Sénégal géographie boole na waa Sénégal waaye mu dolli ñu dolli ci culture ak langue yoy Sénégal ni mu bindo yi ñu gis né wolof doon na làkk bi nga xamé ni fépp ci réew mi fo dem daanaka ñépp a koy làkk lolit nek na euh facteur nek na levier bu yombal euh, vivre ensemble waye ku ne xamna aussi ne euh, foofu laay mujjee mooy diine xaj na sëñ Njóobu dina ci dellusi mais soo xoolee ni fi diine ñëwee ni mu làmbee fu nekk ci réew mi te doon daanaka kuréelu diine wala gisuñu gisuñu diine noo xamee nii dafa doon benn dugge am fu mu dugge muy fi nga xamee ni mooy nord du senegaal wàcc daadi làmb réew mi yépp loolu bokk na ci li tax sénégalais yi bokk nu ñuy xalaate diine bokk ci lu bari nu ñuy gëme nu ñuy euh, euh, jànge mu am aussi ci loolu ab cosaanu daara boo xamee ni dañ koo bokk su su ñuy wax El Hadj Malick di wax sëñ Touba di wax yeneen kilifa diine waruñoo fàtte tamit ne ñoom ñëpp dañu fa am dañu am cëslaay ci eh, ay taarixu senegal ay daara yu yàgg yoo xamee ne yii 1600 la ñu judd yii 1700 jiitu leen fi ay centaine dane eh, teg fi ay jànguwaay. tek fi aussi ay système yo xamé ni ñom biñu tamit dañoo ñëw dans une large mesure reproduire loolu ku ci daara Pire bari na yeneen daara yu fi nekkoon euh, ak ay bërëb yoo xamee ni diine lañ saytu diine lañ fa doon jàng yoo xamee ni nga histoire waaye ku ne xam na aussi ne euh, ci école euh, daanaka sénégalais yépp ñoo bokk ci école bu ñuy naanee ci diine ku nekk xam na aussi ne comme ni ko sëñ Aziz di waxee di ko bind ci livre am génnandoo bi nga xamee ni moom la suñu mag ñi génnandoo ci même siècle ci même période bokkandoo dune qui ay contemporain di tasser entre ça s'est provoqué ak ay tase yo xamé ni hasard la bokk ay ay ay xex bokk ay combat lolu day ku nek euh, lu lo xamé ni moy ci slayu li nga xamé ni mom tuddé tay suñu vivre ensemble kon suñu vivre ensemble bés lii nga xam ne nii moom la ñuy tuddee suñu laïcité dafee am taarix bu yàgg jógewul ndax laïcité bi may wax du laïcité étatique mais mooy laïcité sociétale maanaam ni nga xam ni noonu la nit ñi dëkkee ni ñu bokkee ni ñu nangulantee dafa jóge am cëslaay ci bokk gu ñu bokk bokk nu ñuy gëme bokk nu ñuy nu ni nga xam ni noonu la ñuy Euh, taxawee ci seen diine euh, lolu kon dafa yombal laltaay lu bari lo xamé ni tey jii nii mënees na comme euh, l'exceptionnalité du vivre ensemble sénégalais soy xol li ci exceptionnel ci lolu moko ko laltaay balaa nag ñuy wax waxu Senghor jaar na fi nek chrétien jiite sénégalais yi quatre yombu la xalaat pour ñu bari ñoo xamee ni ñi ngi euh, nekk bitim réew di ñu seetlu wala ñi nekk ci biir réew mi di ñu seetlu donc yooyu xam naa dinaa bàyyi ñeneen ñi dellu si dellu si ci mais pour man euh, fondement yi nga fondement wu suñu vivre ensemble ni nga xamee ni noonu lañ koy décrire en général gën naa xóot noonu gën naa gën naa euh, plonger ay racinam ci suñu histoire suñu histoire bu yàgg euh, muy mu doon loo xamee ni il faut aussi ñu ko ci boole euh, may espérer aussi euh, que suñu histoire bi nga xamee ni histoire générale du Sénégal mi ngi koy génne mi ngi koy suqali waaye aussi histoire histoire générale du Sénégal li mu indi mooy aussi motivation ci suñu tarixa yi suñu kuréel yi pour non seulement ñu contribuer ci histoire boobu waaye ñu defal suñu bopp suñu histoire

ñu ñuy rafetlu bu baax taxawaay boobu parce que dafa am période boo xamee ni dañu ko koo nëbb ci suñu histoire mooy euh, diggante 1200 ba 1600 daanaka amul histoire euh, Afrique buñ ci bind lu bari muy mais dem li nga xamee ni sël na ko ci wone na ko ci mooy amul histoire bu ko gën a leer ci ne Afrique booba développement technologique bu am solo amoon li koy wone mooy ay découverte archéologique yo xamé ni dañ ko dafa am ñu découvrir naka lañ doon defaree or donc technologie bo xamé ni dina permettre euh, nit defar or or bu pur boba ca jamono yoyu muy expliquer lan motax ki nga xamé ni moy Kankan Moussa aj gi nga xamé ni aji nako makka jaar fi mu jaar ba tay ji ni ñu japp ne ba légui Euh, euh, jamono gisaguñu ku ko gën ku ko ëpp alal loolu yëpp euh, wone mu koy wone muy wone ni côté boobu ci suñu histoire dafa lëndëm dañ ko dañ cee war a teg bët leeral ko ba mu mu dellu kon ci lii ma doon wax ne daanaka ñun ni ñu mel ni suñu melokaan ak ni nga xam ni noonu lañuy ñuy dëkkee noonu la ñuy dëkkee suñuy mbokk lolu fofu fofu foofu la coslaay li jege kon gën sori lolu kon lolu lañ ci bëggona bëggona def ñuy nuyu bu baax sëñ euh, mam Cheikh mbake Khadim Awa ñuy doore yex yegg tatagal bu baax baax diko sante sant ci taxawayam di sant wa AIS yi ma gis ñuy yex si di len di bayyi sëñ Djili Ba bu len len, di len nuyu bu baax di rafetlu seen taxaway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 te xam le féeti njariñu màggal ku jug di màggal li yàlla màggal des na la màggal danañ la jiital ma wax la màggal gi yàlla màggal